asalaamaaleykum gars yi maa ngi leen di nuyu waate di leen dalal ak jàmm ci seen sport 221 the best sport channel gaynde yi tey jii dal dinañu amal seen ak tàggatu bu mujj avant ñuy soobu ci match bi nga xamante ni war nañu ko am seen diggante ak Cap ni ki suba lay doon ci talaata ji bu 19h jotee ci stade Lat Dior bu Thiès tey jii la ñu amal seen ak tàggatu bu mujj ki nga xamante ne nag mooy sélectionneur national di Aliou Cissé yëkkati na ay kàddu muy conférence de presse ne mu ngi ko doon amal avant match bi moom nag wax na sax lu aju ci état wu joueur yi ak naka noonu tere bu bon bi nga xamante ni kii di Sadio Mané mu ngi ko doon ñaxtu ni ki démb rek moom nag ki nga xamante ni mooy sélection nationale daal dinay xam ne ni kii di Abdallah Sima nag moom dafa daloon di ay jafe-jafe waaye nag ni ki tey ko testé ci ngoon si dina xool ndax dinañ ko mën a joué ni ki suba waaw am déet ni ki tey jii dinañ ci xam lu leer moom kii di Aliou Cissé loolu la xamle dinañuy bàyyi ngeen déglu leen ci kàddu yi nga xamante daal dina koy tënk ci wolof donte ne li ëpp ci conférence de presse bi ci tubaab la ko làkk waaye nag ñun wolof yi rek lañ leen di jàllalee li mu tënk ci wolof ngeen déglu ko wax na lu aju ci différence wu équipe bii di Zambie ak ñi nga xamante ne ñoo di Cap Vert ak ban taxawaay la gaynde yi war a am ak ndax 11 bi mu joué woon keroog boobu lay tegaat waaw wala déet dañ leen bàyyi ngeen déglu lenn ci li nga xamante ne dina koy tënk ci wolof. mën naa wax ni que commencé nañ ko depuis semaine dernière fu mu nekk nii euh, suba nañuy football euh, samedi nañu joué woon foog naa tey xale yi du gën a am importance mooy que ñu def en yi ak euh, ak kiné mën naa wax ne que suñu entraînement yëpp ci récupération lañ ko lañ ko basé tey tamit ci récupération la ñu nekk séance bi mën naa wax ni 45 minutes maximum day day durer euh, xale yëpp ils sont au rendez-vous suuf Youssouf Sabali yoo xam ne dafa demoon signer contrat am fële ci bitim réew euh, amoon tuuti problème ak ciment euh, j'espère que tey dina dina mën a dina mën a répondre dinañ def essai boo xam ndax mën na mën na jouer suba wala mën na jouer suba si loolu ma ci mën a wax rek mooy que xale yëpp teew nañu ñëpp ngi fii

Euh, nekkul si je crois que waru gar a entraîneur mooy que justement énergie boobu nga xam ne ñun yore nañ ko ci banc bi ñu mën leen ko transmettre pousser leen mais du caaga ni que dañ leen di yuuxu wala wala kontaan ci lu ñuy def waaw kontaan naa trop ci ci match bu ñu def contre Zambie surtout première période bi euh, consigne nañ leen jox yëpp respecté nañ ko euh, première période première mi-temps bi vraiment première mi-temps de de qualité la woon deuxième mi-temps bi nag c'est vrai que amoon nañu benn trou boo xam ne à partir de la quinzième minute

kenn kenn ñëw plaindre ci ci fatigue wala wala blessure kon mën nañ am yaakaar ni que xëy na onze bu ñu am defoon contre Zambie bi mën na demaat mais loolu tey nañ koy xam tey ci guddi après entraînement bi. question bu mujj waaw je crois que euh, waxoon naa ko tamit euh, ci conférence de presse bi après fin de match bi c' est vrai que équipe Cap-Vert bi ñëpp xam nañ ko ñun xam nañ bu baax équipe boobu parce que joué lañ ñëwoon euh, éliminatoire coupe du monde 2018 bi pratiquement joueurs yu fa nekkoon ñoo fa nekk xëy na quelques quelques nouveaux yu ñëw rajouté. Euh, différence su Zambie ak ak Cap Vert mooy que Zambie pratiquement quatre-vingt-dix pour cent seen joueurs yëpp base locale nañu am euh, équipe Cap Vert bi nag am nañu ay joueurs yu bëri yoo xam ne ñu ngi joué bitim réew euh, ci dëkk boo xam ne mooy mooy Portugal naa wax ni que am nañu binationaux yu bëri tamit yu jógee yu jógee Portugal donc mën naa wax ni que adversaire bi muy Cap Vert moo gën am expérience mo gën taxaw mo ëpp qualité bu bu Zambie donc euh, ça tombe bien parce que ñun tamit genre match yooyu moo ñu neex genre match yooyu nañu nañu bëgg pour justement préparer euh, éliminatoire ou coupe du monde bi en au mois de au mois de septembre euh, je crois que loolu bu weesoo je crois que lu gën a am importance sax mooy que ñun ñu ñu xool nous lu ñu lu ñuy def lu ñuy indi football match bi vraiment ak euh, fulla bu mat sëkk def si jom def si fulla def si fayda ba pare gagné ko incha allah loolu lañu loolu lañu fas yéene waaw xam nga coup de pied arrêté moom coup franc moom mentalité la waaw du du du du affaire taille wala wala wala envergure wala poids waaw ku gën a bëgg bal bi ku gën a soxla moom mooy laal bal bi euh, foofu nag du tactique foofu affaire personnel la mais c'est vrai que depuis quelque temps maa ngi xool tamit ni que am na yenn détails yoo xam ne war nañ ko régler ci ci ci aspect boobu comme na analyse beaucoup pertinent nga nekk di joxe parce que bu ñu xoolee quand même dans le passé on a jël nañu ay but yoo xam comme par exemple but boobu ñu jël contre Colombie si coup de pied arrêté la tamit euh, keroog euh, mooy coupe du monde bi 2018 mille deux mille euh, dix ay détails yoo xam ne la ba daf ñuy daf ñuy daf ñuy war nañ ko régler voilà foog naa loolu détail yu concentration concentration surtout ak communication entre góol bi ak défenseurs yi mais sànq balaa nga ñëw entraînement sax xawoon naa si waxtaan ak ñoom ci loolu.

pour que loolu mooy li ñuy gën a mën a jàpp ci tënk rek ci li nga xamante ni kii di Alioune Cissé daal dina koy tënk ci wolof li ëpp ci conférence de presse bi nag comme ni ñu leen ko waxee ci tubaab la ko làkk waaye li mu tënk ci wolof mooy loolu ñu leen tegal match bi ni ngeen ko xamee ni ci suba lay doon bu 19h jotee ci stade Lat bu Thiès diggante Sénégal ak Cap-Vert transfert ki nga xamante ni mooy Youssouf Sabaly moom sax boroon na bokk ci match yi nga xamante ne Sénégal mu ngi koy joué. waaye nag mu wutee ko ndax lu aju ci transfert bi nga xamante ne daal dinay xew ni ki tey jii jamono ñuy waxee ak yéen Youssouf Sabaly jour Real Betis la muy Betis Séville ci Espagne signé na contrat wu 5 bi nga xamante ne dina ko téye foofu la ca Real Betis ba 2026 beneen transfert bi nga xamante ni jamono kii di xibaar yaa ngi ciy bind muy kii di Pape Abou Cissé bi nga xamante ni moom dañu ko able woon ci AS Saint-Étienne mu jóge woon Olympiakos six mois nag la fa daal di def kii di xibaar wéral nañu ne jamono am na club topp ci bitim réew rawatina ci Italie club bi nga xamante ne mooy Fiorentina jamono yi bokk na ci club yi gën a taxaw ngir signé ki nga xamante ne mooy Pape Abou Cissé moom nag dese na contrat ak ñi nga xamante ñoo di Olympiakos gi ko able woon ba 2024 maanaam ñetti at des na ci contrat am moom jamono yi ki nga xamante ni nag mooy Gennaro Gattuso wala Fiorentina gi nga xamante ne jamono yi ñu ngi nekk 13 foofu foofu jeex jeexale ci championnat bi ñoo bëgg signé kii di Pape Abou Cissé dal di ko yóbbu foofu la ca Italie ki nga xamante ni ndax mooy Pape Matar Sarr bi nga xamante ni moom saison bu rëy la def ak FC Metz kayiti xibaar yi wéral nañu ne mën na dem ci English Premier League bi ndax ñii di waa Aston Villa pare nañoo euh, teg lu toll ci 27 millions d'euros ngir signé ki nga xamante ni mooy Pape Matar Sarr moom nag am na sax yeneen i club yi nga xamante ne ñu ngi leen di tudd ci dossier bi ñu ci mel ni Everton Newcastle United ak Chelsea Football Club bëgg nañu signé kii ne Aston Villa moom fi mu génn moo waral ba jàpp nañu jamono yi amul kenn ku tolloog moom ci taxawaay ndax kii di Pape Matar Sarr ci jamono yi njëgam rek ñu ngi koy xayma ci transfert market bi lu toll ci 10 millions d'euros waaye ñii di Aston Villa ñoom pare nañu sax teg lu toll ci 27 millions d'euros ngir forcer transfert bi ndax bu ngeen fàttale ko FC Metz kat jamono yi bàyyiwuñu xel benn yoon ngir bàyyi ki nga xamante ne mooy Pape Matar Sarr ndax ay weer képp la fa defagum waaye Aston Villa daal bëgg nañoo forcer li nga xamante ne mooy transfert boobule mu daal di xew ndax 27 millions d'euros jamono yi moom la ñu génnee bàyyi ko ngir xel ngir teg ko ci transferu kii di Pape Matar Sarr équipe nationale bu Sénégal ba tey ci gaynde yi nga xamante ne dañuy yëngu nag ci wàllum football ci tafes gi ñu leen di tuddee beach soccer ñoom nag tey ci kii di njiit réew mi daal dina leen di dalal kenn ku nekk ci ñoom buñ sukkandiku ko ci kayiti xibaar daal na leen dàmp lu toll ci 10 millions gannaaw bi ñu gañee li nga xamante ne mooy Coupe d'Afrique ni ki fan yi ñu weesu rek ñi nga xamante ne ñoo yooyu la tey jii daal dinañuy présenté li nga xamante ne mooy seen coupe boobule ca kanamu njiiti réew mi ci kaw loolu kenn ku nekk ci ñoom daal dina jot lu toll ci 10 millions mu nekk sa ndàmpaay